xoolee dëgg-dëgg dina xam li nekk sa jàmm ji ne la nangam ak nangam moo la dal nangam ak nangam lañ koy dindee mm-hmm. yii nag kum dal incha allahu rek boo ñëwee lu nuy traité la ba mu wér si kàttanu yàlla sama borom bu fekkee dangaa tële si diiru benn fan laa koy dindi mm-hmm. tële boo xam ne amatoo kàttan sa awara sa sàkkare du jug loolu sëriñ làmp njaay si benn fan la koy dindi si kàttanu sama borom bu fekkee ne dañ laa takk xala moo xam rab takk la xala moo xam doomu aadama takk la xala si diiru juróom-ñaari fan laa koy dindee si kàttanu yàlla son borom bi lii mooy néew kàttan lii mooy tala eh, tële lii mooy takk xala len lu nekk nag nii ma la waxee nii dañ koy dindee incha allahu rabbi wut nañ si ay garab yoo xam ne tamit dem nañ yokk suñu xam dem nañ gëstu ba xam si loo xam ne incha allahu rabbi képp ku ko ñam si kàttanu sama borom di nga xam ne roy nu rawut ak biir si kàttanu sama borom incha allahu rabbi nagam neex na yàlla sama borom incha allah mm-hmm. képp koo xam ne suñu borom bi dogal na nga bëgg ko rek boo ñëwee bu ñu si waxtaanee dinañ la wax yoon wi ñuy jaar ba mu mën a amu numéro yi tamit yëpp am na whatsapp incha allahu rabbi képp ko arrêté euh, loo bëgg si yooyu rek incha allahu rabbi nagam neex na yàlla sama bi lu ñu si xam rek ak sama borom lu mu ñu si may rek nan la ko yeggee incha allahu rabi. yow mi nekk Espagne Serigne Lampa Ndiaye dina faral di nekk Espagne Sevilla mën nga vingt cinq 34 631 25 73 85. Baol Média FM nekk. Baol Média consommation locale ca dëgg-dëgg rajo Bawal la di moomeelu waa Bawal Baol Média rajo biñ doon xaar Baol Média rajo bi dàq naqar di dugal bànneex J'écoutais Baol Media consommation locale te dëgg-dëgg rajo Bawal la di moomeelu waa Bawal Baol Media rajo biñ doon xaar Baol Media rajo bi dàq naqar di dugal bànneex Baol Media ma rajo no tracho. في البارئة لدماء وجات واجلما التكريم وبانا في سار معلما في البار ربانا تكريمه بانا بانا وجعت وجه لمن تكريمها الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه